waaye itam wax naa ne at ma ci topp rek ci la waa Madina dellusiwaat Madina waxoon naa ne am na juróom benn yu fa jóge woon yonente bi gaaraleen lislaam bañ nongu ko te at ma ca topp nag ba ñu ñëw boobu fukk ak ñaar lañ atum ñetteel ma ca lañ mat juróom-ñaar fukk atum ñaareel moomee fukk ak ñaar lañ yoo xam ni maanaam ñi ñëwoon daaw kenn rek moo ci ñëwut muy ki ñuy wax jaabir ibnu abdillahi ña ca des ñëpp ñëwaat nañ ànd ak yeneen juróom-ñaar muy fukk ak ñaar ba ñëwee itam dañoo daa tàmbalee jokkoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi dajale leen ca minan mooy fañ daje woon daaw rek mu dajale leen foofa jaayanteeg ñoom lim jaayanteeg ñoom mooy da leen wax ne baayiuni ala an tushri ala an la tushriku billahi shay'an mooy li ngeen di jaayante man mooy da ngeen di xam ne yàlla kenn rek la bu leen ko booleeg dara wala maanaam bu leen sàcc moo ko ci wolof rek bu leen sàcc moo ci topp bu leen njaalo bul jur doom rey ko bul fen te itam lu mu la digal ci lu baax nga def ko maanaam bul maanaam maanaam ndigal ndigal nga topp ndigal bàyyi tere loolu ku ko def ci yéen yàlla dina ko fay ngeen ji fay koo xam ne nag defu ko moog yàlla loolu la waxante ñoom keroog gaañu ne ko nangu nañ loolu lépp jaayante nañ yow jaayante nañu yow ci loolu bi loolu amee fukk ak ñaar yoo xam nga ci lañ daal dellu Madina fukki nit ak ñaar mu boole leen nag ku ñuy wax Musab ibnu Umayr moom leen booleel Musab ibnu Umayr waxoon naa ci njëlbeen ga bokk na ci njëkk a dugg ci islam te sonn lool doon ab waxambaane yonte bi moom la yebalal waa Madina mu nekk fa nag di leen jàngal di leen jàngal alquran ak di leen leeral lislaam waaye Musab day ku ku yàlla may ku xol bi baax te mu bari pëstéef Musab ba mu maanaam ba mu jébaloo daanaka la daa dëdd adduna wum waxoon naa ne yaayam ak mbokkam dañoo bari woon xaalis waaye bi mu jébaloo xam nga dañoo ko xañ mboolem lam daa am ci ñoom ci wàllu xéwal maanaam mujj na sonn lool ñu xam ko ci yaram bi bi mu naate woon ak ni mujje yaram yëpp nokk ne di nuru yaram ko sonn yàlla dogal nag Musab moomu bi mu jébaloo ci yonte bi doon ko bëgg yonte bi ku bari positif ndax xareb Uhud fi ne moom lañ joxoon raaya bi xare Uhud xam naa duñ ci mën a àgg déwén bu soobee yàlla bu nu fi yàlla bàyyee waaye xare Uhud moom la yàlla moom la yonte bi joxoon raaya bi waaye gis nga ci loxoom ndeyjooram la ko la ko yor ñu dagg loxo bi nii mu jëlee mu jël maanaam drapeau bi ci loxo càmmoñam téye ko delul ginnaaw de dafa dafa taxaw rek yor yor ko ñu daggaat beneen loxo bi mu mu bokk ci ci ci ci ci baatam ñu ñu cor baat bi maanaam boobu pëstéef yomb yombut xol bu bu dëgër ñu noonu la de ndax yonent bee ko ko jox te fasul yéene teg maanaam drapeau bi ci suuf xalaatu ko xare Uhud xam nga drapeau yéefar yi mujj na dañ ko dañ ko bàyyi ci suuf kenn ñi moo ko jël ndax ku ko jël ñu fàtt la maanaam pëstéef bi juru ñi am ñoom amuñu ko Musab moomu nag nekk ci pëstéef boobu de ba mu demee Madina fi mu ne ci ahlu suuf la bokkoon mooy mësta wut kër mësta dem di jaay ak jënd dafa nekkoon ci jàkk yonent bi xam nga yonente bi jàkkaam bi bi mu nekkee nii ay néegam nañ ko rangale nii defoon fii am maar moo xam ni mooy doongay tërbiyee ñoo fa nekkoon mooy ñi nga xam ne ñu bàyyi seen lépp nekk fi yonente bi mu leen di yónni ak leen liggéeyloo Musab mi ci la bokkoon mësta wut kër ba ni mu faatoo moo tax keroog ba ko romb yonente bi rombee mu faatu yonente bi dafa jooy alayhi salaatu wasalaam ngir fàttali ko nam meloon njëkk mu dugg ci islam ak li ko lislaam jaral ak fi mu agsi moom Musab moom nag la yàlla la yonte bi booleeg waa Madina fukk ak ñaar yooyu ba mu demee dafa wàcc ci ki ñuy wax kër ki ñuy wax As'ad ibnu Zurarata As'ad ibnu Zurarata itam di borom posté moom it ànd ak moom ca dëkk ba rek di di di jàngale lislaam ak di woote jëm ci nga xam ne ñoom ñoo mujj waa dëkk bépp di ay jullit nañ ko defe nag ci anam gu xarañ lañ ko def bokk na ci mën naa ci jox ay misaal mooy benn bis As'ab ibnu Zurarata ak Mus'ab ñoom ñaar dañoo génn am jullit ñi ñu war a dajal ngir jàngal leen lislaam ba ñëw ci benn bërëb boo xam ne ab teen la woon ñu toog fa ca teen ba fekk teen ba teenu giir gi ñuy wax banu abdul ashhal la bañ fa toogee nag di di jàngal lant lislaam ak di waxtaan ci diine ñaar ci kilifay giir googu gis leen mooy ki ñuy wax Saad ibnu Muaz ak Usayd ibnu Hadir Usayd ibnu Hadir ñaar ñooñu am na ñoom ñoom ñoom histoire bu am solo Saad ibnu Muaz daa mujj nekk gardien bi yonente bi moom waaye waaye gis nga fi ñu tàmbalee seen lislaam mooy ñoom bañ leen gisee rek ñooy kilifay giir googu bañ gisee Musab toog ak Asad ak jullit ñi Saad dafa wax Usayd ne ko kee mu toogal muy Asad de salaamaaleykum waaleykum alhamdulilah mu ne ko kee mu kee mu toog muy Asad de day sama doomi nijaay bismillah jaay mu ne ko kee mu toog toogal muy Asad de day sama doom yi nijaay te itam su ma demee lu ma ko def rek day ñaawal su su suñ mbokk gi moo tax yow Usayd demal nga wax nga wax nga wax nga wax ak moom Usayd jël xeejam dem fekk fi Musab toog ak ak ak Asad ba mu leen jubee rek Asad dafa wax Musab ne ko waa jii di ñëw de kilifa la bis boo fexee ba mu ba mu dugg ci lislaam mbooloo mu bari dana ànd ak moom dugg ci lislaam bay boo nag nga nga nga teewlu sa positif ci sa xol maanaam fas duqillaha fiihi mooy waxal ak moom ci ci dëggu xam nga nit ki buy wax ci loo xam dafa dëggu ci moom faw di dugg ci xolub ko ci def maanaam ki nga xam day wax nii di ci bàyyi ay xel ak am ñu ki yooyu sikkre doon ci wax ji moo tax wax ji bu àgg ci xol ba day fekk maanaam du am doole day fekk doole ja néew moo tax bu àggee ci ci ci noppi rek lay mën a yem du àgg ci xol ba wax nag bu fekkee dafa génne ci xol ànd ak ku dëggu ak ku lawatina xol bu leer bu ànd ko teew su ne bu ñëwee day day day romb nopp bi dem ci xol ba ba mu waaj a dégg borom xam dañ ko dañ ko misaal ci lu ku mel ne tey masal maanaam gaa yu baax yi nga xam ne ñoo ñooy borom xam tasuuf yëpp ci loolu lañ la misaal ñoom seen i wax day wuuteeg wax yi yéen gaa yi nga xam ne seen xol dundut am na ku ñuy wax Fudayl ibn al-Iyad dama ko ci dugaloon rek ngir wax ne wax wax waxi gaañoo ñi li ñu àgg ci xol doo ko indiwaat ci xis mooy Fudayl ibn Iyaad dafa mas a moom doon ku dëddu àdduna benn bis buur bi Haaruna Rashid woo leen am ndaje ñoom borom xam Fudaylu keroog la njëkk a dem ca buur ba bi mu ñëwee toog ci jataay bi kaalawu kaalam goo xam ni maanaam nu ngi ta xool dara ci ci bërëb bi dafa kaalaw xool suuf ne ne Sufyaan ibnu Uyayna mi mu jàndal ne ko Sufyaan kan moo ci amirul mu'minin kan moo ci buur bi mu ne ko kële mu geesi ko ne ko yow borom kanam gu jekk gi yow yaa gàddu mboolem jullit ñëpp ci saw loos ci ci lañ ne maanaam mboolem li jullit ñi amee ci suuf yow yaa ko nangoo gàddu ci sa loos woowu li nga rëy na buur bi tàmm ronkoñ ci génn nga xam ne wax ji àgg na ci xolom ba ba ba ba ba ba ba mu daal di tiit suñu saa si tam ronko yi gën loolu nag la ko Asad wax ne ko teewlul sa positif la wax moom fasduqillaha fii Asad Musab daal def noonu bi usa bi Usayd ñëwee daal ne daal leen wax ne yéen ñaar day fekk boobu Asad ma dëkk ci dëkk ba la ne ko yow day li nga def dootuma ko seetaan diine ji nga dugal ci dëkk bi kenn xamut diine jum doon yàq suñ doneeg yii nii loolu laa bëgg mu dakk dama bëgg moom luy suñ suuf si noonu nga génn ko bi mu waxee wax ba àggal mu sam ne ko tee ngaa toog nu leeral la li ñuy wax su dee lu am solo nga bàyyi nu wéyal su fekkee nag maanaam duyu la nun nu def li nga wax mooy génn dem Usayd daan ne ko lii nga wax nag wax dëgg yàlla mas na ko dégg mooy naa toog bi mu toogee Musab tàmbali di ko leeral lislaam jàng nag alxuraan tàmbali di jàng alxuraan muy diglu waaye asant nee na bi mu daataa bi mu sab daataa daane laa xam ne waa ji dana tuub ndax daa mujj am ci yitte lool daa toog nag di ko diglu may ko xel léeg-léeg mu reetaan ma ne ah sa waa ji de waaye nam ko waxoon ba mu daanelee rek njàng mi la la daan ne ko daal lii ngeen wax dara gënu koo am solo ma ahsanahu wa ma ajmalahu amul lu gën a rafet li waaw lii moom ku ci bëgg a dugg nooy nooy def mu ne ko yomb na da nga dem sangu fee te jàpp te ñëw ñu wax la baati chère yi rek nga dugg ci bokk ci bokk ci noonu mu daal def noonu fasaasa moom Ousseynou fasaasa itam mu daal fa jógee delluwaat fa penc ma fa ñoom sax du toogoon ba muy ñëw nag la sax du du mu ne waa jii de kanam gi mu yóbboon ak gi mu dikkaale bopp yàlla dogal bi mu ñëwee fekk Ousseynou moom it daa daa tàmbali tërali pexe moom ngir nu mu dugale ñoom sax du ci islam bi mu ñëwee ne ah Saad fekk Saad bul fàttali moom da ko wax ne demal nga dàq leen fee ndax moom da leen doon dàq Ousseynou bi mu ñëwee nag ne ko Saad ñee daal dem naa fa waaye ñoom ànd nañu ak man maanaam wax na leen dañ fa daal jóge léegi li ci ne daal mooy yow Asxaab sa doomi nijaay la te fi mu ne banu xaarisa banu xaarisa fi ne dañ koo bëgg a ñëw jëflante ak moom xeex ak moom sonal ko te xam nañ ne sa sa doomi nijaay la loolu fi ne bokk na ci li tax ñu ñu ñu bëgg a xeex ak moom fi mu ko waxee rek sandu moom i daal daal di mer daal di jug daal di loolu moom du ma ko seetaan daal di ñëw bi ñëwee ba jub jub leen xam ne xeex amu fa ci la xam ne kee da ko doon nax rek mu wax asaan ne ko yow nag da ngay sama doomi nijaay waaye bu doon loolu dinaa la def tay jëf ju kenn xamul li nga dugal ci dëkk bi nit ñi nga indi diine ji kenn xamu ko wax a wax ba àggal Moussa jaarati fam jaaroon ne ko li ñuy wax daal bu la neexee nga ñëw déglu ko su la doyee nga topp ci bu la doyee itam nu def li nga wax mooy nu génn ci lépp chante ne ko loolu nga waxi nit la mas na ko dégg aywa tàmbali wax li nga dégg mu tàmbali moom Moussa tàmbali jàng alxuraan bi muy jàng alxuraan chante moom it jaar fa kële jaaroon nag tàmbali moom intéressé wu lool ci li li muy wax tàmbali reetaan jox ko may ko xel moom it ñoo xam ne dana jaar fa dana dugg si fasaase itam ba Moussa daaneel rek dana ko daal tegtal mu nu may def ba mën a dugg ci ci diine lii moom moom am na solo lool moom it daal di daal di tuub ba mu ko defee nag moom daa daal dem ci penc ba mu bàyyi woon gaañu ba mu ñëwee ne leen waaye yéen lu ngeen xam ci man ñu ne ko yow de wax dëgg yàlla nit ku baax nga ku nu doy nga ci sa xel ak sa lépp mësuñu xam ci yow lenn lu ni xarat mu ne daal giñ naa ci te fekk moo doon sang ba maanaam moo doon moo doon moo doon seen jiit ñoom moo doon seen kilifa banu abdul ashal mu ne leen daal tey jii moom yéen sama mbokk yi kenn ku ci dugg ci islam dootuma waxate yow dagg naa sama diggante yow keroog ba jant ba daata soo mbooleem waa giir googu yëpp maa si dugg ci islam nga xam ne fi ne kon madina mu mujj madina kër yëpp l'islam dugg fi ne moom giiram gi kenn rek moo ci dugg ci islam fi ñuy wax usayrim usayrim benn waaye la boobu kooku rek moo ci dugg ci islam moom sax du mu Useyrim Uhud la la tuub moom it ba mu ñëwee fekk ca jamonoy xeex bi ñuy waajal Useyrim xoromu ay mbir la ndax moom tuub na waaye mës ta julli mës ta woor mës ta def dara fi mu tuubee ak fi mu faatoo kii na yonente bi ne moom lim jëf bëriwut te fi ne ab yoolam bari na ndax dana dem àjjana maanaam dañoo yonente bi laaj ko ne ko moom bu fii bu ma xeexee buñ buñ buñ ma faatee ma dem àjjana mu ne ko waaw mu daal ne ko tuub na daal dugg ci xeex bi ne suut ñu daal koy ñu daal di koy faat moom jullut defu dara ni nga léegi loolu nag kon ci la waa dëkk bépp nag Madina gépp doone jullit